asalaamaaleykum mbokku Sénégal di tàmbalee sama néew ci kilifa diine yi kilifa aada yi partenaires yi Sénégal yépp di leen xamal ni coow li bari na torop moo waral ma def vidéo bi pour génn pour leeral askan bi di leen xamal ni wax bi fi juddu euh, xëy na erreur la juum naa parce que euh, dama dégg ñu prononcé mot viol mu nekk lu rëy lu nekk lu garaaw moo tax ma réagiré ni ma réagiré mais jëlewu ma ko woon benn sens ndax nag euh, ñun Euh, en tant que comité suñu combat dafa loolu sax daf ci bokk ndax at yi fi passé yëpp bu ngeen xoolee culture générale bi fii dañ koy thème la boo xamante ne nii dañ koy débattre lutte contre violence faite aux femmes te man mii di jigéen man maa njëkk bokk ci combat boobu te képp ku koy xeex maa ngi sa ginnaaw pare naa pour ànd ak yow pour defendre boobu cause waaw di leen wax ne leen bu fekkee ni viol am na ci wax ji ñun pare nañ pour ànd ak suñu doom justice aussi na ci def liggéeyam maa ngi demandé excuse bu dente wax bi heurté na bu dee wax bi am na ku mu heurté maa ngi leen di jéggalu di leen wax pardon waaw voilà di wax ni que ni mi Sénégal dañ ko def rek pour dimbali ci suñu ay rek dimbali ci suñu ay doom mu nekk événement boo xamante ni nii dafay contribuer ci développement culturel touristique ak économique moo tax ñu jënd ko mu nekk patrimoine mu existe depuis 60 ans donc mënuñu lu dul di ko rafetal muy continuer merci beaucoup.